boo xoolee ni ñuy joué nga xam ne ñaan yi dañu am complicité ñu doon joué da ngay xam ne ñaan yi dañu am complicité. Mhm. te sama nitu bopp la kenn du wax lépp nag. Mhm. sama nitu bopp la sama waay la sama xarit la. Mhm. kii xam ne lépp. kii xam ne lépp mais du lépp la ñuy la ñuy wax daal. dëgg la waaw. dëgg la ma koy nuyu de passage et puis. Euh, di ko ñaanal. di ko ñaanal. succès bi yàlla na ko sunu borom gën a ful. waaw wax na benn wax boo xamante ni yëngal na àdduna. waaw mais rôle tey jii boo joué benn affaire dafa dafa dafa dafa def kenn waxu ci bul defati bàyyil dem dem tëri ah Ndiaye. Mm-hmm. bul waxati. Ndiaye Korawaay. benn publication réew mi yëpp di ci wax loolu sant yàlla la mais moom nag nga koy jàngatee à chaque fois lu mu laal rek mu bëri coow. mais dafa am suñu borom déggoo ma xanaa. am na ñoo xam ne force wuñu wala juguñu jékki-jékki ni dañuy jouer xam nga tey mën ngaa jóge fee jékki-jékki taal sama caméra ni da ngay mais am na ñoo xamante ni yàlla day def ci ñoom loo xamante ni lu ñu laal sunu borom tekki loolu yàlla la sunu borom mooy joobee noonu nga def leen sunu borom tekki yàlla la. Mhm. ñu koy sant nag bu baax. xam nga kii lu waaw loo ko bëgg a wax. Kora kaay kaay kaay damaa am benn ndaanaan boo xam ne. benn ndaanaan. waaw boo xam ni yow il faut nga jàpp jour. Mhm. kii Namien la. waaw ndeysaan. ma may ko mu toog. toogal toogal dégg nga kii. Eh. kii li muy tëgg. amul. ndeysaan te bëgg naa nga jàpp bis ñu def benn une heure rek. Mhm. ñu indi jéeli yi teg tabala yi. waaw ma woo Makura. chéri soxna. Mhm. Nabien la. waaw Saawaay Darko. Mhm. ak Cheikh Mamadou Ndiaye. nga déglu Nabien yi li ñuy def fii ci biir Thiès. loolu bés bu ngeen ko paree fii sa kër la boo ma woowee man damay damay rek yow yow yaa loolu sa loxo ne. kii gis nga ni ko gisee ni mu gàttee nii. kii bu ko tabala jàppee. Oh, bu jooy mbay de jooy na nag moom par li moom mënoo def ak moom émission ba mu jeex te jooy. booy nuyoo rek. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim waa Sénégal Buzz maa ngi ziar ñëpp. ñu ngi lay delloo. di bu baax wax dëgg yàlla kii. kii sama doomu ndey la. ndax dafa yàgg. ba dara dul dara. Mhm. mu doon nit ku gore barki Serigne Saliou. Mhm. bëgg ñëpp. Mhm. rawatina ñun nabiyen yi. vraiment dafa ñëw rek farak ñun mhm. Ndiassé amul lu ñuy def te du ci ànd ak ñun mhm. barki de moo Ndiaye laay sant Serigne Saliou fii mhm. bàyyi léppam ànd ak man commencement ba fin kon kii lu ñu ko jàpp rek doyul mu bëgg ñu lool nag bëgg ma ko bëgg nabiyen yi mhm. te loolu mu leen wax noonu wallahi dafay dëgg ci moom xam naa ni bis bu ko jàppee incha allah ba woo mhm. di ngeen xam ni Sénégal yemul ci Dakar rek Cees mhm. ci Sénégal la bokk euh, ñu suñu ànd ba suñu yëpp euh, yëfu la te ku sa cër mot rek dañ la koy jox ba mat sëkk loolu ñu ngi ci ñu ngi yàqamti nañ ko bu ngeen paree rek ñu ànd ci ak yéen incha allah rabbi kooku dañ koy bàyyi sama doomu ndey kontaan nañ bu baax moom kenn moom dañ koy ñaanal barke alxuraan yàlla na ko yàlla defal tawféex arbitre bu ci bëgg moo ko xam na bien yëpp ko koy ñaanal mhm. billaahi Sénégal gi ñëpp a koy ñaanal ndax dafa baax disponible fu ne la ñu koy yóbbu ànd nañ fu na ñu nag moom billaahi wallaahi joxuñu ko dërëm mooy yëkkati sax di def ci ñun kon xam ni kooku bëggeel fa bokk na ci li ma neex ci waa Thiès quoi mayantal loxo bi jàppalante bi góor jàpp ci góor góor jàllal mais grand loolu mooy aduna aduna bi bu ñu jàppalantewul duñ dem fenn barke lu kenn mën ñaar da ko koo dàq rawatina kii nag sama doomu ndey la lu mu ne ñu ngi ci mhm. ñu nag moom bëggee ji far macha allah barki sëñ Saliou kontaan naa ci yéen jërëjëf na bien télé bi yàlla na yokku amiin na ngeen yokku ba yëkkoo amiin na ngeen romb TFM amiin yaa rabbal alamin maa ko na jeune na de Thiès amiin yaa na ko yàlla suñu borom mu baax sama doom jooju ah. di ñaanal njaboot yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm seytaane vraiment ndax adduna ñu rek la mm. xam nga li na damaa romb rek dem lii mooy mais daf maa gaare macha allah bàyyi lépp ñëw ndeysaan kon moom dañ koy gën a ñaanal dëgg di ko ñaax amiin affaire bi xoolal téye rek waaw yemul fii de parce que day dem eh. laal mu dem ñàkk laal mu dem yow jàmm rek gay de macha allah jooy nag <laughs> kaddu yi am na solo jërëjëf <laughs> moo di euh, jotaay bi euh, MC kaay tëj waaw <laughs> MC kaay ñu tëj rek garaawul sensé Moussa Dieng rek tey moom waxtaan bi moom dañ ko def tàkkusaanu eh, eh. Thiès rek. Ah. ñëpp ñëpp bokk nañ ci moom ñu eh. waxtaanee ko. damay nuyu Aana. Léwani. di nuyu Léwani ak mère Fatimata Ba. ak mat a baax cum ak seen papa ñoo ñàkk ki boo ñëwee ba ñetti kàddu romb baaru lay ci rek. waaw laa ilaaha illallah. nee naa la. Hmm. Ah. yow nga waat ma. non non ma ci Aana ak Léwani fa laa yem point foofu rek laa yem. bi du ma ko continuer de. yéen foofu ngeen dem foofu ngeen ñëwaat. man ma est-ce que duñ ndogu ji sax. ok ah, ah, kon kon kon koor gi nag damay bëri jikko njaay lool. <laughs> voilà waa jeex na tàggoo tàggoo gi damay kon yàq nañ ma léegi yàq nañ ma. ah mais gars yi. <laughs> Eh. waaw comme d'habitude rek. Eh, ba balaa balaa balaa ngaa tëj tamit. aussi fi ma nekkoon ak yow tamit. Euh, sa diggante ak Soumboulou. laa bëgg rek ñu gën cee taxaw tuuti parce que tamit euh, ñu bëri dañu koy faral di wax léeg ñu ne dañuy gis ci moom ñàq kersa ñu ne dañuy gis léeg ci moom réewande ci biir Euh, moom ban façon. nit non dama lay wax ñàkkul kersa réewut nit ah mën nga jékki mu def lii wala nga nga jàppe ko lool te organi mel noonu noo ñàkkul kersa réewut moom vraiment ñàkkul kersa réewut nit daal rôle la rôle la yaa ngi dégg boo tourné buñ la joxee sa rôle da ko war a appliquer jàngal nit ñi nit ñi xam lu lu ñu war a def ak lu ñu ta def mais rôle benn mbilim lacc rek. gars yi fii ñiy tuus ay saaga ñiy def ay dog ñiy def mais garaawul amul solo mais xëy na da leen di éduquer da a bëgg a éduquer wala ñu amoon góom bu am màndarga bu rëy. Mhm. mu bëgg leen koo fajal. Mhm. ah ñu ñu ñuy am lu ñu piliqué mais man tey jii ku ma ne woon géwél géw ku waxoon ci géwel yi damay déglu lu muy indi après mais doo wax ci géwel rek yaa ngi dégg ma jékki-jékki naan la waroo wax lii war non non non lu muy indi. falaayam mhm. parce que dafa sensible quoi falaayam dafa sensible dafa sensible falaayam mhm. mais man moom ni nga ko xamee ndax détails yi mënu ko yëngal. détails yi man. coow yi ñuy wax ci kawam kàddu yi mënul def dara sumbul mënu ko yëngal. waaye yow mais mais Seexuna ko gënoon metti le Seexuna lan lañ ko defut Seexuna booy yi biñ ko jour biñ ko jàppee ci wiiri wiiri xanaa booy ay sabar lan gaari buntu këram di ko tëggal. lu gën a metti loolu. mais dox na dégg ay saaga. Mhm. dox na dégg lu nekk. mais ku ci nekk dégg nga ku ci nekk da ngaa dégg ku yëngal rek dégg. Mhm. ku yëngalul kenn doo dégg. Mhm. mais tamit dañ koy assumer. en tant que sœur bi la. métier bi la bu jeexee jeex na. ragaluñ loolu. en tant que sœur en que turandoo doom lan nga koy dénk. non man li ma koy dénk moom xam na man xam naa. ma koy ñaanal rek gudd fan succès bi gën a yokk. yàlla suturaal ñëpp nag ma kenn yàlla dimbali ñëpp suturaal ñëpp jox ñëpp lu ñu def ci poos yi. Hmm. waaw. waaw waaw Soumboulou bu marson génn di sànni xeer sax day metti mais moo ngi wax gars yi dégg da ci gën a conseillé moo gën ñuy marche am. ci teel pare naa ci. déedéet bul énervé bul énervé bul énervé xool ci Soumboulou mu ndaw rek xool ci Soumboulou mu ndaw ak sénégalais yi. xool ci Soumboulou ah jël sama primo man. ah match man. ndeysaan ci sëñ sëñ see sëñ see moom yu ko neex lay def man man daal xool ko. <laughs> chéri madame Mbaye kenn du moom jërëjëf kontaan naa waay bu baax a baax a baax. mon frère jërëjëf. Mhm. maa ngi nuyu sama yaay nag. waaw ak sama goro. waaw ak samay rek ak sunu waa kër. <laughs> maam kontaan naa jotaay bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak moom tey moom dama naan waxtaan bi euh, tàkkusaanu cees rek laa ko defoon ndax gaa yi ku ci ne rek ñëw nañ ñu partagé ko euh, nii rek la ñu koy defee di leen jox di daje ci beneen numéro jërëjëf